pays là ma nekk fii di leen wax ay waxu rab zug ak rabu mbalax ak ak rab taasu maa ngi jégalu ñu ñu avancé man moom <laughs> dellu naa ci sama mënit maa ngi ci sama combat d'accord amul benn problème man sama askan sama bakkan te maa ngi woo Fata mu dimbala ñu ci maa ngi ci loolu laa koy woo viens nous aider à libérer ce peuple nga dimbale ñu loolu rek laa lay woo en tant que frère kaay nga dimbale ñu ñu libere peuple bi ay defoon naa ko daaw daaw jéeg ñun def nañ ko daaw def nañ ko daaw jéeg ba léegi ñu ngi fi ñun ñii la dammoon ñii ñun ñii ñoo xeexoon bañ dammuñu yaakaar naa mosoo xeex bañ damm la ñun ñii nga gis ci télé yi ñu ñu wane ñu nekk ci mbedd yi di xeex musuñu laa wane ci télé nga nekk di xeex te man mi ngi doon xeex daawaati daaw jéeg maa ngi nii ba léegi di xeex kon tant que liñ teg sénégalais dindeekul war ñoo bàyyi xeex bi amul du xeexu démb ak bërki démb man ci lii laa lay woo maa lay woo yow en tant que frère en tant que ami nga ñëw dimbale ñu ci xeex bi nga taxaw wane sa bopp ni peuple bi nga àndal nga def ay discours discours góor yàlla wane ni peuple bi nga àndal naqar yaa ngi gis seen mettit yaa ngi gis seen naqar te yaa ngi ànd ak ñoom ci loolu parce que say waajur ñi ngi koy subir say frère Saint-Louisien ñi ngi koy subir say sœur ñi ngi koy subir Saint-Louis dara doxu fa comme yeneen région yi donc yaakaar naa ne am nga yeneen loo war a mën a taxawoo pour diriger la révolution de Saint-Louis ou bien la révolution de dakaroise ou bien du Sénégal nga nekk au devant de la scène que nekk fii vraiment dañu wax waxi taasoo ki tuq sa ngalam ak xalam ak demal tëri voilà kon ñi ngi lay woo ci loolu ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu nga montré wu en tant que souverainiste montré wu en tant que patriote waaye montré wu en tant que combattant auprès du peuple sénégalais oppressé opprimé oublié massacré tué et sans enquête ni arrestation donc ci loolu laale woo en tant que frère sénégalais en tant que euh, souverainiste maa ngi lay woo nga ñëw jàppale lañu ci xeex bi voilà comme nu ngi waxee rek yaa ngi woon Amérique ok pourtant sénégalais li wax nee nañ métti na leen trop te joytu nañ ma ci yow bu ñu génnee sénégalais yépp nekk Amérique ñuy doog ñëw sax même ñi jaar ci Nicaragua amuñu këyit ñëpp taxaw jàkkaarloog Macky sàll dictateur assassin di ko yuuxu di ko sànni ndox di xeex ak moom gars ay sénégalais nee nañ ma nii nga leen rombee ni yàq bu naqari te ñëw nañ wax ma ko ne ma Fata nii la ñu rombee dañuy sabote ànd ak coon ñaaw di saboté di ñu saboté et pourtant sénégalais nga doo doo ñag doo burkinabé doo murit malien doo doo doo doo doo neneen lépp Afrique la mais doo sénégalais nga sa baay di sénégalais sa yaay di sénégalais say njokk sénégalais nga romb ay sénégalais Sénégal yépp di manifester Amérique nga ne leen fu ñukk ko ne yàqu mel ni ku leen di saboté pour lan pour lan te loolu pourtant wax nañ ma ko léegi nag <laughs> man foofu laa lay woo sama waa ji Sénégal dañ la soxla ci xeex bii dañ la soxla ci xeex bi nga wane sa sa sa wàll ci xeex bi nga wàll wane sa wàll ci xeex bi loolu lañ la soxlaa soxlawuñ la leneen loolu moom boo ko wanee rek daw ñu wane woo sa yow foo xeexee kan moo fi gis Fataa mu xeex bu ñu ubbee pale ba yaa ngi ne curux ci biir toog lu fu ñu yaa ngi ci politicien ya hmm? yaa ngi fépp nga xam yaa ngi ci politique yaa ngi ca yaa ca Fataa kaa ñu xeex kaa ñu xeex taxawaay bi ma taxawee jëm cee taxaw tuuti sax tuuti taxawaay bu nit dof taxawee taxaw ci tuuti nit dof da nga gën a doon sénégalais li muy jaayante ni Karim Xrum Xax bi nekk ci kaso da nga ko a doon sénégalais ñoom kilifa ak ñuy xeex da nga leen gën a nekk ay sénégalais lan moo tax ñoom ñëpp ñu ñu rayante ngir seen peuple di jaayante ngir seen doo jaayante benn xumaan bu yuuxu fi par passé par là di di xeex xanaa du sénégalais benn mass black diamond buy rayante di di di di di poste ay affaire xanaa du sénégalais parce que poste sax xeex la yow doo poste doo xeex doo wax doo mais tous ceux qui ne sont pas avec le euh, le chef sont contre le chef mais yow doo wax doo protester ni écrit ni dara donc yow sa yow yow dafa mel ni nguur gi nga àndal yow yaa gën a jege ku ànd rappeur bu àndal nguur gi parce que doo musuma dégg nga taxaw ne Macky Sall arrêtal euh, nit yi ngay tiire Macky Sall nangam musuma ko dégg ci yow musuma ko dégg ci yow dafa mel ni peuple intéressé wu la nga bugg leen nag bu ma la toppee ci lii da ngay nalawal peuple parce que dafa mel ni yow da nga bëgg ma topp la nga nalawal peuple bi parce que fu mu ne nii lu nga bëgg moom mooy ma topp la ci ay rabu xura ndaqa ndaqa ndaqa rabu xun xuran xan-xan-xan ak rab boobu noonu bu ma topp ci taluma ko taluma ko nag nga baal ma mais vraiment sama waa ji taluma ko man moom taluma ko man moom ruus naa yi nga xam ni dañoo rey seen i frère rey seen seen nangam nit di nekk di protester di wanewu nga toog fa nga toog yow kese romb sénégalais yow yaa premier sénégalais bu romb ay moromu sénégalais yuy manifester biir New York nga nekk fa ànd ak Thione Niang nga xam ne tekkiwul sarap maamam moom Thione Niang nga ànd ak moom di lambar lambari biir New York romb gaa yi di xeex man loolu jomb naa ko rus naa ko man loolu loolu bu bu man ñimewu ma ko def man ñimewu ma romb sénégalais taxaw di xeex ma romb leen di dox di dem loolu ñimewu ma ko kon nga xam ni sincèrement <laughs> bokkuñu sax idéologie bokkuñu leneen ak leneen. kooku moom du ma ci werenteeg yow du ma ci werenteeg yow yow tu as choisi la voie bu gën a facile mooy topp ci nguur gi bañ a wax dara nguur gi pour mun a lekk ay weccet ci ñoom man nguur gi lekk ma fukki dërëm ci ñoom. yaa ngi naan sax danga ma défendre nga ma fii bu ñu la waxee ni xaw ma ay dem naa New York ak tabaay man yooyu sénégalais yi seetaan xam nañ bu baax leeral naa leen lépp bougé wu fii daw ma New York maa doon teg samay dil infiltré ci laa duggee ki nga xam ni moom mooy. waa nguur gi ba xam lan la ñuy préparer lan la ñuy def ak loolu Stéphane Kabou mun na ma seede Stéphane Kabou bii di déglu mun na ma seede moom moo ma jox moom mu ngi nii di déglu mu moom moo ma jox signe boobu moom moo ma ko jox. fii laa toog mu woo ma ne ma gars yi am na vidéo bu ñuy monter di def ay affaire ma ne ko loolu leer mu ne ma waaw moom moo jox piste boobu ma infiltrer leen. fukki dërëm lekk ma ko te bu lekkoon fukki dërëm nga gis ko man du ma man je suis incorruptible. incorruptible nguur daf maa ñëmewul sax ba may woo ba di ma dajeeg man fenn ba di ma jox fukki dërëm man laa la wax incorruptible yàgg naa défier nguur gi dama ne nguur gi lu may saaga seen ndey bu ñu yoroon fukki dërëm si man wala benn dara lu luy preuve ne am na mus nañ ma jox benn un franc pour ma def nangam ak nangam kéene nañ ko bu yàgg man je suis incorruptible laa la incorruptible doomu aadama yàlla sàkku ko ko Sénégal bu ma mun a corrompre di ma féet defal lii wala defal laa loolu existé wul man sama combat nekk man sama combat nekk combat bu ma gëm fonk ko Stéphane Kabou ngi nii right c'est moi qui t'a donné les noms de ces gens-là Stéphane Kabou moo ma woo fii fii ma toog nii fii ma toog sama néeg bii ma toog nii kër gii ma toog nii na ma gars yi ñi ngi pexeel Ousmane Sonko sa Ousmane Sonko man leen waaw mën ah bon ñu ne ma waaw ñi ngi pexeel sa Ousmane Sonko di monter ay vidéo ma toog di ci xalaat di ci maayen di ci maayen di ci maayen xool nan laay mën a def pour infiltrer leen nan laay mun a def pour tegal leen benn appât noonu laa def dugg ci biir infiltrer leen rajax affaire ba génne toj affaire ba affaire ba jeex ba léegi suñu jonn yàlla tey yaa ngi doon dégg ñuy wax waxu vidéo tegaluñu la vidéo wanuñu la vidéo wot def dara donc loolu ma def noonu dem ko def yow jëm ko def noonu kon boo toogee ñu naan laay kon yàgg nañ wax Mollah Morgun day dem New York di ma lay défendre yow xam nga ni xam nga bu baax ki ngay défendre xam nga ni man duma ma doo man yow xam nga ni man xool ma bu baax a baax a baax a baax du ko ñuy jënd bu sénégalais meloon ni man laa la wax Macky Sall daf fiy jóge ci première heure dama koy xeex ba muy jóge fii kenn kenn doomu aadama newul Sénégal moom mun a jënd man te je serai toujours avec le peuple sénégalais aux côtés du peuple sénégalais loolu laa gëm da ngeen arrêté seen caaxaan yooyu ngeen nekkee bugg ñoo sonnal nit yi nekk ci combat di rayante ñuy tëj say moroomu rappeur ay ñoom nit doo ak ñoom Karim Xrum ñoom Cheikh Omar Diagne ak ay gor ñu tëj leen ay garmi di leen fenal di leen sosal di tëj ay Ousmane Sow ay gor ak garmi nga war a ñëw taxaw combat nit yi ànd ak nii nga nekk di ñu bëgg a rey taasoog taasoog ndeyu rabak ndeyu rabay taasoog gasara marak taasu laa la wax ca xaj taasu jigéen yee ko doon def góor du def taasu ñu jàmm ak taasu góor bu saxi dambal naan taasu man man adduna bi jeex na xanaa hmm? bu lay wax taasu moom jox ko jox ko topp xeesal mu commencé xeesal ndax kooku du góor kooku jigéen la kañ la vingt et góor bu naan la ay taasu taasu lan taasu jigéen a ko doon def bi ñun kañ la dëkk bi torox nii ba ay góor ay sax ñaari dambal bi wala benn dambal fi am léegi dañ toog fi naan ay taasoog taasoog te nday ra taasu gas sara ma rek taasu taasu ay toolu góor waay affaire baa ngi bëggee soof nag quoi taasoog yi waay sar taasu taasu ndayam ñuy dóor bu wow bi wow kong sa baatu góor yàlla ñu jox la jox la baatu góor ta waaye dëgg yow maa ñu jàmm waay taasu boo buggee taasu nga dem ànd ak ñoom a Bërëng Barigo ngeen dox fële ngeen taasu ñun taluñu taasu gaayen ñun si guerre la ñu ne no joke no gimmick only fight taluñu caaxaan goog nga nekkee yow maa ñu jàmm nag quoi maa la dégg nga naan ay bu ñu waxee ci kaw ak ay affaire yu fekk man Fara mus naa la woo est-ce que mus naa yow mus naa la woo fu ñu musee wax yaa ma woo musuma laa woo yow fu ñu musee ma pour muy clair dama la forcer dama forcer suñu ànd wala dañ forcer ñu gars am na feeg ma man ne yow yaa ma musa woo bu ma musee woo affaire coon ñaa nga ma woowee ma ne la man ma mais moo laa ñun réew mi lu tax ñu nekk di kaas rek te ñun duñ duñ doon dara ma ne ko waaw ñun war nañ doon dara am nañ bopp am nañ maay nga ànd ak coon ñaa après nga am man coon ñaa dégg naa sax dama leen bëggoon boole parce que dégg naa da nga ko clash ma ne clash naa ko bu la neexee nga paas ma ko man coon boobu ba léegi paasoo ma ko de parce naa ba nga demee di wax coon ñaa danaa la yi ñimewuma yow yaa ma yeb mais nee naa la man du ma daw nit ba nga ma waxee waxu coon ñaa dama la la indil wool ma coon ñaa indi woo ko parce que boobu xam naa ne yéen a nekk moom mooy jamonoy New York man du ma topp man coon ñaa boobu nga topp noonu man coon ñaa yabu ma de xam nañ ko bu baax coon ñaa xam naa ko bu baax dama laaj ko Pascal Seck dama ne ko ana pa ana Pascal Seck nga dem laaj ko kan mooy coon ñaa foofu ci yoo lay nekk di dóor di duul ak a dajale coon ñaa yabu ma bu muy nekk Kaolack ñoo nekk ba bu muy dem jàngeen ji lycée Blaise Diagne ak di taxawaalo ko wëndaale di dugal 40 fois visa États-Unis mu cóol mu am benn daw di yuux di jibile sañu kanam la bul ñu fontoo nekkoon club anglais euh, lycée lycée euh, Blaise Diagne di jàngantu angale wat wat sa wat yoon yoo yoo la jommal yow la mën a duul ay dóor dugal la ay beso balance ngeen di taxawaalu loolu fa jëlee loolu leen jëlee Maison Blanche ban contrat ngeen fa jëlee loolu leen fa jëlee gas saram ma rek nga ngeen fooye xale yi nga xam ne ñu bu ngeen ñëwee Maison Blanche ñaata ngeen gis ñu dugg ci biir Maison Blanche Maison Blanche boo fa bëggee dugg da ngay da ngay def demande ñu accès nga dugg visiter Maison loo fa jëlee gas saram ma ton ñaa yoo lay fooye yabuma moo tax ba nga may waxee la nga ma wax ne ma dangay dellu ci coon ñaa laa ne man xamoon naa ni coon ñaa ñi mu ma woo yow yaa ma yab mais coon ñaa yabu ma yow coon ñaa yow <laughs> ko gis nii ma muy làkki anga yaa teg du gàtt coon ñaa du duuri muus foog du ko <laughs> ngeen di caaxaarkat yi ngeen di ngeen di fontu ah, mun a fooye man yabu ma te ba nga ba ma waxee ba nga ma wooy yow yaa woo man musuma la woo musuma woo barke xaadimal Moustapha musuma la woo fu ñu waxee yaa ma woo fu ñu waxee yow yaa ma woo yow pour muy clair non bu ñu waxee bu ñu waxee yow yaa woo man booy aw ma sa jot de may booy man aw ma sa jot tu ma toog sax ba lay xalaat man maa ci sama combat focus affaire door yi da nga dóor booy yi fële yi yi da nga koy dóor booy yi fii naan nañ la amuñu sax sa jot amuñu sa jot booy yi ñun dañuy xeex boo mënee nga ñëw ànd ak ñun ci xeex bi boo mënul nga may ñu jàmm quoi ñun ba léegi yaa ngi def raf nga rab mbalax funaana foo toj booy Fara gars yi fàtte nañ la il faut nga gëm yàlla fàtte nañ la musique mënoo fee defa defa defa defa def ba gars yi déglu la génn nga fi xaw ma lan yaa ngi koy wax global citizen man xaw ma ban xaw ma sa benn morceau wallaay la xam xaw ma sa benn morceau dégg naa la rek benn affaire bu may gis ñu tag nga naan ay joxe leen àllarba bi àllarba joxe leen àllarba sama àllarba wala jóg jóg ci sama àllarba ma ne wa kii lu muy def nii foofu laa ko sape àllarba daal dégg naa ko ci. génn nga loo xam ni lu ne def nga ko jaxase nga rab funaana rab zuk rab mbalax doxut rab arène bi doxut rab taaxuraan doxut rab salsa doxut nga rab taasu doxut noppalekul. xam ni jeexal nga bi ngay gëm yàlla benn sax ngay gëm yàlla xam ni jeexal nga munoo fee expérimenter musique ba jommal nit yi léegi nag sa discours yooyu yàgg na yooyu amutuñ jotal ay bu may ñëw dinaa ànd ak cinquante américain gasarama ak américain luy américain mais faraam yi yéen est-ce que kii wér na maa ngi ñëw benn sama album bu may génne boo ko génne ñetti nit koy déglu maa la ko wax ndax bërki démb rek dégg nga génne ga te kenn xamu ko kan ku ko xam fii man man man rappeur sax xaw ma ko keneen xamu ko boo fi génnee da ngay perte rek kenn xamu ko fatax gars yi xamuñu fàtte nañ la fàtte nañ la amul muloo fi mën a def ci musique ba ñu déglu ko gars yi fàtte léegi nag xam nga fi des nga amal leen njëriñ tuuti nga ñëw di leen xeexal kese mais musique moom fàtte nañ la léegi nag mënoo leen jommal ak ay américain sincèrement arrêté la quoi vraiment <laughs> fii ñi ngay waxal yëpp ñi ngi Amérique ñi ngay waxal yëpp ay nationalité lañ yor sincèrement ñi ngay wax yëpp mën nañ dugg Amérique for for taxawaalukat ya musoo indi américain bu bu bu investir Sénégal bu amal njëriñ Sénégal vraiment ñoom Sankara Mbaye mun na dem indi avion wu américain ñoom seeni mun nañ indi avion wu américain ñoom <laughs> ñoom xoree si càmm basketteur mun nañ indi camion wu américain wala ay avion américain vraiment may ñu jàmm ak ay américain quoi ay bu ma ñëwee indaale américain yi ni day day Sénégal rek lañ fa nekkee day fa doxat fa lekk fa caaf caaf taxawaalu wala wut fa caga kese bu ñibbee dem ji bu ñu fontoo quoi ban américain nga mus a indi bu financé Sénégal ban américain américain taxawaalu kat ak ay ñuy lekk caaf seen biir yi di taw feesal suñu duus yi duul fa day fa taxawaalu fa wëndaalu fa bu fa caga bu ñu tëddee ñibbi <laughs> Fara Fara yow monde bi nga nekk dañ ko dépassé ay bu may ñëw indaale américain rek ay bu may xool Fara américain yi ngay indi amuñu njëriñ amuñu njëriñ <laughs> amuñu fa njëriñ seen i weccet la ñuy ñëw vacance wu te taxawaalu foofu wala yow léegi yow ñoo da nga foog ne boo indee ay américain ñu toog fees doon ñun dañu la war a gëm quoi parce que kan la parce que kii John John Bush la tudd kii mi ngi tudd xaay na sënk kii mi ngi tudd na <laughs> affaire coon ñaa yooyu non gars yooyu yooyu doxatul Sénégal de affaire coon ñaa yooyu <laughs> Sénégal yi gars yi dañu seen bopp de xoolal waxuma la Amérique japonais sax boo leen indee faalawuñ la wax sénégalais nii yow pour yow waaye yow yow sax boo indee sénégalais yi romb la dem seen yoon yow sénégalais dañoo tal <laughs> ñi ngi ñi ngi complexe yooyu jeex na de ay dem di yanu ay américain di leen day rek lañ fay defee day kese lañuy ñuy def foofu amul leneen day lañ fay def yu idéologie coon ñaar yooyu yooyu moo ne sa bopp bi nii <laughs> fotowu naa Maison Blanche maa ngi vidéo Maison Blanche <laughs> na ku na ko ne moo Fata Fata bu leen faale ñi dañ laa soxaree nu nga dugal nu nga dugg Maison Blanche <laughs> defoon naa na ko dañ laa soxoree lu ko dugg maison blanche Fata dama liggéey Fata dama liggéeyi demal nga liggéey yow boo gëmoon Sénégal doo jël sa jabar jël seen njaboot yëpp yow sa tuuri leen Amérique toog fa <laughs> Fata dama liggéey Fata bàyyi caaxaan demal nga liggéey te nga bàyyi caaxaan bu dee dàll yi nga doon jaay demal ngi New York foofu noonu nga xës la génn ci mbedd mi jaay say dàll wala nga jéem a dem dugg ci benn compagnie liggéey moo gën sa taxawaalu gi nga nekkee gëmoo Sénégal jegewoo Sénégal doo xeexal Sénégal bu ñu mars doo fa taxaw musuñu la gis Amérique ngay mars musuñu gis si wetu combattant yi Fatah gëmoo Sénégal boo gëmoon Sénégal doo jël sab jabar jël sab njaboot yëpp say doomal yëpp yóbbu leen Amérique naan was wasu goome noonu ñoom ñëpp fa lañ kenn newul Sénégal di bërëng yóbboo kenn seel wi ci sa côté papa ak sa yaay say mbokk yóbboo fa kenn ñoom ñëpp a ngi Amérique nga naan leen wasu goome noonu ñaa wësëb faa da nga naan yaa wësëb bu ñu fontoo bul ñu fontoo quoi bul ñu fontoo nga may ñu jàmm ak ay back to the roots back to dama jëli say doom yooyu ñu ñëw back to the roots dama jël sa jabar mu ñëw back to the roots nga yóbbu leen saalum ca ñale ñu dóor ca ñaleñ nga nga yóbbu leen siin ñu laal ca cere cere ñeex ma nga nga nga yóbbu leen bund ak pays basari ñu mëq ci mbudaake bi loolu mooy back to the roots bul ñu fontoo yor sab doom yóbbu Amérique ñu toog fa ak sab jabar ñu toog fa nga naan was was going on naan ñu back to the roots bu ñu fontoo boo ñëwee Sénégal di nga fa fekk luy back to the roots ñoom ñu nga fa toog am problème mu fay courant problème fay ndox feebar tëw a fañu amuñu lu ñu lekk naan la grand may ma juróomi dërëm foofu mooy back to the roots danga may ñu jàmm ak toog ba Amérique naan naan back to the njaboot yëpp nga sànni leen fa naan back ba indi leen ñoom ñu back to the roots dèjà balaa kenn indil sa jabar ak say doom ñu ñëw Sénégal back to xam ne yow gëm nga back to the roots te nga futti sa lii nga sol nag say jëngal yi nga sol ak say yooyu ak say yoo yoo yoo bu nga arrêté ko te commencé di di wax naan ah ah maam jox jox ma ca sëb ña sëb ma xam ne loo may maam mu ne nga jox ma ca sëb ña ma ñam ah maam eh, i ndàmpaay de bu ma ci mënoon am ma xam ne back to la mais ñu jàmm dem ñu bëgg nga may ñu jàpp mu quoi nga fo nga mel ni ku yor ay xale yu ñuy foowee ñu naa baatu ruuse baatu ruuse yoon Fada dangaa jeexal barke alxuraan laa la waatal munoo fee musique musique musique musique ba gaa yi dégluwaat la jeex na ruuga rocceeku na jeex na xamal li ñu xam gaa yi nga xam ne ñu ngi musique sax di musique ñëpp ñu ngi aussi côté du peuple di sénégalais peuple sénégalais au moins au moins ñu ngi ci wetu peuple bi oh bay sawaay Fata yow nan nga mën a xoolee peuple bi di leen seetaan nan nga mën a xoolee peuple bi ñu nekk ci mbedd yi ñàkkutoo xepp investir ay góor ak ay jigéen jël ay camion wane ci suñu fils yi ñu rey suñu rakk yi suñu sœur yi ñu ñu tëj ci kaso yi ñëpp nekk ci quatre jours de New York yu tàng jër nit yi di xeex nga romb leen di leen ñaawal ànd ak sa coon ñaa taxawaalukat googu nga xam ne gat mënu ko fee am yow yow coon ñaa